waaw waaye xale bu mag ñiy màgget xale yiy dee kon ku yor réew mi nañ leen sóoraale président de la république nañ sóoraale jeunes yi nañ sóoraale politique de la jeunesse nañ sóoraale formation yi nañ créer ay emploi wala ñu dimbale ñiy créer ay emploi boog ñu créer ay emploi jeunes yiy dem dara jaru ko bakkan jaru ko damay tekki jarut bakkan nous sommes tous complices médias mbokk yi immigré yi surtout surtout les immigrés parce que am na ci ñoo xam ne immigré am na ñu xam ne amuñ ku leen fayal dañuy jaay dem. ñàkk désespoir jaru ko. li ñuy sonn sonn ci coow lii di ko wax nañ ko def ci tool yi nañ ko def ci àll bi nañ ko def ci ndox mi nañ ko def ci jën yi nañ ko def ci jeunes yi nañ ko def ci càmm gi léegi mu jeex d'ici dix ans nit ñi dañuy ñëw Sénégal mais Sénégal yi duñ génn di dem. Mm-hmm.